waaw man la si Cissé deuxième vice-président AS Pikine ñuy euh, vraiment di nuyu di ndokkeel waa Live TV tey yi ñëw tey fekke sunu match euh, fin wu phase aller bi contre Gorée. waaw sant yàlla parce que ji bi euh, vraiment li xam ne ni moom lañ doon séntu ci moom ak lim ñu waxoon au début moom moo ngi koy jëfee mooy je suis venu pour la montée. ñëpp xam nañ ne ñaari équipe ñooy monté donc aujourd'hui on est en de phase aller bu fi championnat bi yemoon Pikine ci ñiy monté lay bokk donc li mu waxanteewoon ak ñun moo ngi koy def te gis nañu beneen xar kanam mooy à domicile on gagne nos matchs à l'extérieur on gagne des matchs wala ñu match nii donc ñu koy ñaanal li ñu commencé nii ak trêve bi mu renforcer les postes yi xam ne nii moom la ñu xaw a faible pour que ci deuxième phase bi résultat yi Pikine def à l'aller mooy vraiment 27 points nekk premier championnat bi ñu doublé ko ba yàlla defal ñu bu championnat bi jeexe objectif yi ñu waxoon ne moom lañu ñu ñëw pour wut si muy monté bi yàlla jaarale ko ci loxoom. waaw euh, organisation d'abord parce que balaa ngay dem di wuti sponsor da ngay euh, asseoir benn club boo xam ne nii dafa taxaw am nañ ay supporters certes am nañu club mais stable gul man nee naa tant que ñoo ngi yaakaar ci li maire bi di joxe pour fay ay salaire pour fonctionner nekk guñu club. il nous faut avoir au moins des Pikinois yoo xam ne ils assurent le fonctionnement de l'équipe ce qui fait que li maire bi di joxe mu dem dans l'investissement qui va nous permettre bu ñu yéegaatee ñu mën a am ay junior ak ay euh, cadet yoo xam ne ni ku ci nekk scolaire dinañ la mën a jëlal en charge sa scolarité xam ne sa famille dootu ko yorati loolu ci investissement la jëm dinañu mën a am suñu centre de formation dinañu mën a am suñuy infrastructure bu bopp loolu moo ñuy permettre suba ci sponsor boo dem ne ko notre projet est viable dina xam ne laajuñu ko xaalis pour fay ay salaire mais dañ ko laaj xaalis pour dugal ko dans le cadre d'un projet su boobaa moom mu gis ci boppam ñun ñu gis ci suñu bopp présentement boo nekkee ci ay jafe-jafe pour nga dem ci sponsor mu wisi la day metti bien que gis nañu ay sponsors xam ne Pikine la ñu nekk di jàppale yeneen club yoo xam ne nii nekk ñu boo demee tey jàmbaar da fay gis waa Orix Orix fii la nekk Caaroy Géej boo demee ci yeneen club yi da fay gis ay sponsors yoo xam ne ñoo ngi jàppale yeneen club ñu leen di woo ne leen effort bi doomu Pikine di def ñoo ngi leen ciy ñaan ñoom ñu ñëw gunge ñu muy Sedima muy Sips muy Nestlé muy société yi nekk ci département Pikine yëpp ñu xamal ne leen ne xaalis dañ ko soxla pour football bi pour am un club de très haut niveau boo xam ne dina jouer les premiers rôles ci championnat bi dina jouer les premiers rôles euh, au Sénégal pourquoi pas en Afrique donc dañ leen ciy woo mais ñoo ngi préparé aussi sur le plan marketing pour que bu ñu yàlla mayee ba ñu asseoir club boo xam ne taxaw na vraiment lié une collaboration franche avec un sponsor leader ñoo ngi ciy liggéey te yaakaar naa ne bu ñu yeggee l ak staff bi taxaw ak moyens yi xam ne ñoo ngi koy dégager war nañu mën a am un sponsor leader qui va nous accompagner bientôt. sant yàlla defe naa ne dafa am benn appel bu ma fi waxoon benn jour j'avais dit tous les cadres pikinois doivent faire quelque chose pour l'équipe et j'avais dit que Pikine amul cent pikinois yu mën a génnee ku nekk un million teg ko sur la table en début d'année du ñu dem donc si des cadres pikinois s'organisent pour lever des fonds pour l'AS Pikine dama naan bravo et je salue l'initiative et j'en fais partie donc je ferai tout pour que dans ces levées de fonds là man Malick Cissé je contribue non pas en tant que président de l'AS Pikine mais en tant que cadre pikinois parce que c'est une idée auquel vraiment à laquelle je crois très bien waaw appel bi may lancer toujours rek mooy AS Pikine ñun ñëpp ñoo ko moom amul waaso amul politique amul góor amul jigéen amul euh, Dalifort ba Kër Massar foofu la As Pikine nag maire moo ngi def effort cinquante millions nous sommes la seule koy bu koy jox équipe donc li ci des mooy population bi dans toutes ses composantes ñu dooleel équipe bi démb li ama def pikinois yëpp gis ci seen bopp war nañ ko retrouver ci football bi retrouver wu ko ci musique bi retrouver ko ci njàng mi retrouver ko fépp foo xam ne ni pikinois moo fay taxaw appel boobu laay lancé gars yi nañ ci jàpp parce que Pikine la am te Pikine mooy li tax ñun suba bu ñu taxawee ci kanamu ñëpp ñu mën a ndamu comme démb nañu ndamoo ci victoire Ama